bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alal mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa Muhammadinil makiin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin ixwatal iimaani wal islaami wal ihsaani wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nunguñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc bi jaayi sayyidul wujud sallallahu alayhi wa ñuy dikkaat ak yéen rek ci xidma bi muy liggéeyub mu rasul bi ñu soobu rek fas ci yéene nekk suñu biiri jamono mu nekk ñu fas ko yéene di ko def ci suñu yëngatu ak suñuy dal lépp ñu jox ko xaadimu rasul kon suñu daje bi ñu mujjën a daje rek wala ñu ne émission bi nga xam ne bii moom la ñu mujjee xalaat bëgg di ci yënguwaat ñu tudde koon ak ta'niisu bi kitaabaati Cheikhul Xadim muy wettili ko mbindam Cheikhul Xadim ñu am tam buñ ko tàmbale woon muy mawlidu nabawi sharif sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmbale woon ko ci gane jamono nga xam ne gii Seyduna Muhammad gane na ko jamono ñu am luñ ci doon waxtaane keroog mu e, toll ci ñaari tomb muy ñu jëkk na wax ci Cheikhul Xadim e, ni ko gàmmu gi yitteele woon waaye tamit ñu waxan ci beneen tomb bu ñaar bi muy bëgg nga xam ne gii moom la bëgg bëggan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ci ay wax yu baree baree bare yoo xam ne yii suñ ko doon topp rek mën naa yaatu lool lool lool kon tomb boobu ñu mujj woon muy bëgg gi mu bëgg moom moom xaadim rasul bëgg gi mu bëgg sayyidina Muhammad dafay dund alxuraan ni ko yàlla waxe rek ndax yàlla ci boppam moo wax ne su ngeen bëggee man ma bëgg leen man yàlla euh, euh, da ngeen di bëgg Muhammad mii yàllaa ko wax ne ne su ngeen ko bëggee rek ma daal di leen daal di bëgg qul in kuntum tuhibbuna allaha euh, in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah waaw loolu la ko wax dane ko nee su ngeen bëggee yàlla bëgg leen daal da ngeen may topp man Mohamed su ngeen ma toppee rek eh, bëgg ma yàlla daal leen bëgg kon gis nga loolu la xaadimu rasul doon dund ba bëgg gi mu bëggoon yonente bi yemalewu koog dara tey nag kon ñu demaat bi fas yéene wëy rek ci eh, tomb yooyu muy jëm muy aju ba tey ci eh, gën jamono gi rek sallallahu alayhi wa tey ñuy fas yéene wéy ak yéen rek ci beneen tomb muy fidaauhu lin nabii sallallahu alayhi wa sallam bi nafsihi wa awlaadihi wa bi aazzi maa yamliku tey dañuy waxtaan ci xaadimu rasul jot gi nga xam ne gi nee maanaam da koo jot yonente bi sallallahu alayhi jote ko boppam ak ak njabootam ak lépp loo xam ne lii moo gën a màgg ci lépp loo xam ne li xaadimu rasul am na ko rek nee na yii yëpp dama ko boole jote ko yonente bi loolu nag maanaam jote yonente bi moom lam ca jublu mooy maanaam moom xaadimu rasul ne lépp loo xam ne li nar naa dal seydina Muhammad ci loo xam ne lii lu koy gaañ la ne ne loola man jaral na man ma jël sama bopp ak sama njaboot ak lépp lu ma am maanaam eh, jaarale la sama diggante ak Seydina Muhammad ngir loola bañ koo dal loolu mooy fidda u lin nabi sallallahu jot gi mu jot yonante bi ci jëmmam ak ak njabootam ay doomam ak lépp loo xam ne li am na ko ci wàllu am am pam daal buñ koy wax si bëgg mu leer mooy Xaadimu Rasuul na ne lépp loo xam ne li nar naa dal yonente bi ci lu koy lor wala lu koy naqari eh, man jaral na maanaam ma ñàkk sama bopp ñàkk sama njaboot ñàkk li ma am lépp te loola bañ a dal sayyidina Muhammad mu daal wax ne mahat mahabbatiyal muxtaara sayyidana xubbil maraniina awil xubbil maraniya wal ahlina wal walada Cheikhul Xadim dafa wax ne bëgg gi nga xam ne gi moom laa bëgg ku ñu tànn ka te mooy suñu sang bi Seydina Muhammad ne na bëgg gi ma ko bëgg tax na maanaam bëggatuma am koom bëggatuma ay doom bëggatuma sama njaboot maanaam daal di ne moom xolam dafa fees dell ak bëgg Seydina Muhammad ba tax na euh, doom yi ko yàlla jox ak alal ji ko yàlla jox ak njaboot gi ko yàlla jox yépp daal bëgg gi bëgg Seydina Muhammad moom moo jiitu ci xolam fees ko dell ba yooyu yëpp tax na maanaam mbëggeel boobu ma leen bëggan far na daa di moom xaadimu rasul ne dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abadan xadiman lahu nga jot gee ma doon wax ne xaadimu rasul ko jote Seydina ko boppam ak ak ak i sama deret wa ahli ak sama njaboot wa awlaad yi ak samay doom alfidaa loxo ne ne lépp def naa ko mu doon jotak ma maanaam ma jote ko euh, seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdan lahu ma nekk koo xam ne kii jaama yàlla lay doon xadiman lahu nekk koo xam ne kii moom dama koy liggéey moom seydna muhammad muskaana lii seen la ndax ne ne bu dee ni jaam bi ma doon jaama bi yàlla yàlla moo doon sama wéeruwaay ma di ko jaamu waaye tamit liggéeykat bi ma doon di ko liggéeyal Seydina Muhammad moom itam ci moom laa wéeru ci barkeem ba tax ma mën koo liggéey yàlla nen nag eh, mu nokk bëri yu baree bari muy wax ci wàllu jot googu mu jotee boppam ak njabootam googu di ko jotee Seydina Muhammad nee nag wal ajabu fi dalik an yaqiya bi xaddihi rijla mahbubihi sallallahu alayhi wa sallam min kulli shawkatin aw darrin nee na li gën a yéeme ci lee mu wax ne muy nee na bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad tax na geneen bëgg amul ci xolam waaye tam deretam jeeg njabootam géeg li mu am yépp mu jote ko Seydina Muhammad nee na li gën a yéeme ci loolu li gën a yéeme mooy ne ne moom xaadimu rasul ne su ma gisan Seydina Muhammad maanaam mu nar a jóg ci ak dëkk mu di ko jam maanaam mu nar a jóg ci lu ko gaañ ne damay jël sama lex teg ca loole di ko gaañ Seydina Muhammad jaar ci sama lex ngir bañ a gaañu gis nga ñu ne wal ajabu fi dalika an yaqiya bi xaddihi rijala mahbubihi sallallahu alayhi wa sallam min kulli shawkatin aw daarin ne ne li gën a yéeme daal mooy Xaadimu Rasuul ne ne euh, su ma gisoon Seydina Muhammad ak dégg nar koo jam rek damay teg foofa sama lex ca dégg moom Seydina Muhammad jaar ci sama lex bi jàll ngir dégg bañ koo jam su ma gisoon luy lore mel ni jaan joo xam ne naa ñëw bëgg ko mat wala jiit yoo xam ne ji da koo nar a ne damay dem tëdd ci kaw loola maanaam mu moom Seydina Muhammad jaar ci sama kaw ba mën a mucc ca loola mu daal di ne faxaala xaddi wiqaayatun li rijlin mujtaba min shawkatin wa ma yudaahi aqraba xaadimu rasul ne ne xaddi sama lex bi wiqaayatun li rijlin mujtaba ne ne mooy wegal mooy fegal tànki seydina muhammad ya min shawkatin ci ak dégg ko nar a jam wa ma yudaahi aqraba ak lépp loo xam ne lu nuréeg jiit la di nar lor Euh, Seydina Mohamed ne bu dee ak dég la bu naree jam Seydina Mohamed damay tëdd tëral sama lex mu jaar ci sama kaw bu dee ne lu mel ni jiit la wala jaan la yu mel na yoo xam ne da damay tëdd jaar sama diggante ak a def Seydina Mohamed mu def ma ko kon ne ne loolu nag bii ak jot la goo xam ne gii nii ko Seydina nii ko Cheikhul Khadim waxee gëme ko ni noonu la ko doon dundee te néew na lool bii pas-pas ak bëgg gu toll nii maanaam ñu gis koo xam ne kii bëggee na ko Seydina Muhammad bëgg gu toll noonu nii beneen tomb bi ci tobbaay tit muy xubbuhu lil aali wa saxaabati waxtiraamuhu lahum ba tey Cheikhul lu jëm ci bëgg gi bëgg Seydina Muhammad rek ne na da caa boole ñoñam maanaam daa bëggaane ñi nga xam ne ñi ñoo gëm Seydina Muhammad wa saxaabati waaye tam saxaaba yi ñi nga xam ne ñi ñoo jamonoonteeg Seydina Muhammad te gëman ko da leen a bëgg waxtiraamuhum lahum day ne ne waxtiraamuhu lahum ak it ne ne da leen a ormal lool ndax ne ne li anna dalik min mustalzamaati xubbi nabi sallallahu alayhi wa ndax ne bëgg yonente bi day am yu cay bokk yoo xam ne yii maanaam mooy firndeel bëgg ga te ne nga bëgg ñoñ Seydina Muhammad bëgg ay saxaabaam ormal leen day bokk ci li nga xam ne lii day waral dafa bokk ci li nga xam ne lii maanaam mooy firndeel bëgg koo xam ne gii bëgg nga ko Seydina Muhammad fa xaala xaadim rasul daal di wax ne widaadi li rabbi wal muxafa wa xisbihi wa man xabbahum wallahu li kaana bil afi xaadim rasul na ne man de widaadi sama bëggeel li rab bi bëgg gi ma bëgg sama borom wal mu xafaa ak bëgg gi ma bëgg ku ñu topp ko muy Seydina Muhammad wa xisbihi ak bëgg gi ma bëgg ñoñam ñi ko gëm ak i saxaabaam ak waman xabbahum ak képp ku leen bëgg de ne ne mbëggeel yépp dama ko boole mu nekk ci sama xol bi wér lool wallaahu lii kaana bi laa fete ne yàlla ci mbaaxam ak yërmaandem fu ma mën di nekk rek damay defal jàmm damay may jàmm ngir bëgg ko nga xam ne gii moom laa bëgg yonent bi bëgg ko ñoñam bëgg ko ay saxaabaam xaadim rasul daal di waxaat ne widaadil rabbi bi aalihi ka asxaabihi wal kullu ahda wa an bëgg nga xam ne gi moom laa bëgg eh, sama borom ba tey wal mu xafa bëgg ko ku ñu topp ki muy Seydina Muhammad bi aalihi ak bëgg ñoñam ka asxaabihi ak i saxaabaam ne ne bëgg googu dey lu wér a la ne ñoom bëgg gu ma leen bëgg moom yemale ma leen ak lenn ne nag wal kul ahda wa amba te ne ñoom ñi ñëpp nag ku ci nekk rek ci ñoom da nga nekk koo xam ne kii da nga nekkan juba jub ba mel ni yaa gën a jub te it yaa gën a na tegu ca yoon nga xam ne bii ci nit war a aw ngir àggate yàlla daal ne wuddi la hoo wali rasuli was sixaab asamani wa xaada li nafa saxaar ñu ne bëgg nga xam ne gi moom laa bëgg yàlla bëgg ko seydina muhammad ak i saxaabaam ne ne bëgg googu moo ma fegal moo ma ñoŋal ba musal ma ci lépp lu may ragal lu may tiit waaye tam bëgg googu itam moo ma ommatal njariñ loo xam ne lii la ma cay jariñoo moo ëpp li ay niir di jariñ maanaam niir yi nga xam ne day taw nga xam ne ab taw moom xiwal la mën a indi xiwal gu bare bare bare bari ci kaw suuf ne ne bëgg gi ma bëgg yàlla ak yonentam ak i saxaabaam ommatal euh, na ma euh, njariñ lu gën a bari njariñal niir yooyu nga xam ni day taw nga xam ne taw lépp xiwal la xaadimu rasul daal di waxam ne ahibatiya daarini saxbun nafa bihim ilaahi li xayri kulla man laysa yabraw xaadim rasulillah daal fii ci àdduna ak àllaaxira ñi nga xam ne ñi ñooy samay soppe ñoom lay bëgg mooy sax bun ay saxaaba mooy saxaaba yi nga xam ne yi nafa bihim ilaahi ci seen barke la sama boroom dàqe li xëyree jëmale ci kenn ku du man ku la man lay sa yabraw képp koo xam ne kii du set maanaam képp koo xam ne kii du doonab jullit képp koo xam ne kii nërta jëm ca yàlla na bëgg gi ma bëgg eh, saxaaba yi eh, ci loolu ci ñoom la ma yàlla ñoŋale musal ma waaye tamit ci la ma eh, ommatal jëme ci keneen koo xam ne kii ku man képp koo xam ne kii maanaam bu gëmut yàlla nangu koo jàmm daan ne nag asaxba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fillaahi wallaahi yaklaaw bëgg gi mu bëgg saxaaba yi ak eh, waa kër bi rek lay dëgëral moom xaar rasul daal di wax waaw yéen saxaabaay yi man de maay liggéeyal eh, Seydina Muhammad waaye yéen tamit samay soppe ngeen dama leen a bëgg lool te yàlla rek tax te it bëggeel googu maanaam maa ngi ko sukkandiku ci sama boroom mu nekk lu wér loo xam ne lii moo nekk ci sama xol ma bëgg leen ko ndax ba muy tagg Seydina Muhammad ca muqaddamatul am daax fi mazayal miftaax euh, dafay tagg yonent bi ba ci ba ci yàgg si mu daal ne ko ayaa mu wax xaadim rasul wax ak boppam daal ne ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal madoxu madoxu mu xataw day tagg yonente bi ba jàng si di ko ne wax ak boppam moom xaarim rasul ne yow mi nga xam ne nii yaay liggéeyal ku ñu tànn ki muy Seydina Muhammad bul fàtte mu ko saxaabam ya ndaxte ne ne boo toppee Seydina Muhammad di ko tagg ba fàtte saxaaba ya boole woo leen ca ne la sa tagg woowu day damm sa liggéey boobu day xaw yàq day xaw sooxe gis nga ko kon eh, noonu la Seydina Muhammad meloon ci bëgg bi nga xam ne gii bëgg na ko loolu la xaadimu rasul ci bëgg nga xam ne gi bëgg na ko Seydina Muhammad ak i saxaabaam ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñi gëm nañu Seydina Muhammad muy jullit ñépp kon euh, bëgg dafa am solo lool ndax euh, noonu mu ko waxee ni ko yàlla waxaan rek ne sey ne wax Seydina Muhammad ne ko nee leen su ngeen bëggee yàlla bëgg ma da ngeen may topp sopp ma bu ko defee yàlla bëgg leen loolu la xaadimu rasul doon dund ba tax na bëgg bi nga xam ne gi moom la bëgg seen aw mel maanaam dafa feesal xolam ba doon dell ba leneen xaju ca lam ca dugalaat nag muy te lépp benn la mooy bëgg saxaabaam yi bëgg njobootam gi bëgg ñu ko gëm ñëpp te ne loolu day bokk ci li nga xam ne bii euh, day mottali bëgg goo xam ne gi bëgg nga ko Seydina Muhammad ndax nit ki boo ko bëggee da ngay bëgg ñoñam bëgg bëgg la mu am loolu moo tax mu daal di ci boole ñooñu ba tey xaadimu rasul ci wàllu gane jamono Seydina Muhammad rek moom xaadimu rasul mu waxaat beneen mu nekk mu jàllaat ci beneen tom bu am solo te mooy alquranul karim ndax ku wax ci Seydina Muhammad rek euh, war nga wax ci alquranul karim kon nee na xubbuhu lil quran bëgg gi nga xam ne gii moom la cheikhul xadim bëggan alquranul karim ne ne wa zalika bi uqufihi wa tilawatihi wa idmaanihi nadar fi mabaanihi wa tadabburi maanihi ne ne lii moom mooy firndeel ne xaadimu rasul ku bëggan alxuraan la ku ko fonkan la ku ko soppan la ndax ne ne loolu li li koy tegtale mu nekk firnde mooy dafa saxan ci di mokkal alxuraan nga xam ne dafa mokkal alxuraan nga xam ne fu mu nekk rek maanaam da koy tari mën na koo tari waaye tamit dafa saxan di jàng alxuraan ci fu mu mën a nekk waaye tamit euh, dafa saxan di ubbi alxuraan ji li mu koy mokkal mokkal lépp mu saxal di ko ubbi di ko jàng ngir bëgg koo xam ne bii bëgg na ko ko waaye tamit da cee boole woon li alquran di wax mu koy settantal di xam maanaaya ba xam alquran ji li muy wax lu mu doon li zalika yaqulu yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa kunta xablu tabibi ne loolu tax xaadim rasul mi ngi daan wax naan yow téereb yàlla bii di bii de te alxuraanu karim yow yaay sama soppe yaay sama xarit teyit bu jëkk yaa nekkan sama docteur waaw bala may soobu ci di la jàng dëgg dëgg di la seetantal dëgg dëgg daal fekk na yow nga nekk sama docteur ba pare ki nga xam ne ki yaa ma faj sama ràggi xol yépp nga dindi ko yow alquranul karim daal di waxaat ne alayka usni li xillun wa anta xibbi xaadimu rasul daal di waxam ne yow euh, téeréem yàlla bi de maa ngi euh, wajjahtu wajhiya wajjahtu wajhi bi ilal karimi lazi xat jaada bi zafari xaadimu rasul waxaan ne sama jëmm jëpp day jubale naa ko ci di jàng alxuraanul karim loolu ma jubale na nag sama jëmm ji mooy yàlla maanaam sama lépp jébbal naa ko yàlla ci di jàng alxuraan ji nga xam ne jii bi ma ko jàngee gis naa ne maanaam amee naa ci xéwal yu rëy rëy yoo xam ne yii fonk gi ma fonk moom alxuraan ak di ko jàng rek ca laa ko amee daa kon mu waxaan ne laziltu ashkuruhu bil xibsi bil xibsi fi xalati wa fi tadabburi bi tajwidi wa nazar xaadim rasul ne alxuraan bii daal duma dañ mukk di ci sant yàlla sant koo xam ne bii dama koy teg ci di mokkal alxuraan ci sama xol waaye tamit di jàng maanaa yi di ko xam di xam li muy wax ci di ko jàng njàng mu rafet njàng mu baax moo xam ne nii day tegu ci yoon ba ma mën a xam la muy wax waaye tamit ma di ko xool li mu koy mokkal mokkal lépp mu ne dama koy xool kon gis nga bu dee ci wàllu bëgg nga ma doon wax ba tey moom Xaadimu Rasuul bëgg gi mu bëgg yonente bi ne ne kon da cay bokk itam lii firndeel ne bëgg nga Seydina Muhammad maanaam nga fonk alxuraan bëgg ko te di ko jàng moom itam ca day bokk ci li firndeel bëgg boo xam ne gi nit ki su ko bëggee Seydina Muhammad da ko ciy boolee muy alxuraanul karim beneen tomb bi ci toppam mooy iktharuhu assalaata wassalaama ala nabii sallallahu alayhi wa sallam beneen tomb bi ñuy def dem ci waxtaan wi ba tey mooy Seyxul euh, Xadim ni mu doon bareele ay julli ci yonente bi maanaam bari lañ ko lool lool nga xam ne boo dee xool xaadimu rasul lim bind ci julli ci yonente bi kenn xamut lu mu toll waaye tamit da ko daan wax toog di julli ci yonente bi lu baree bari loo xam ne lii néew na euh, ku ñu gisagun walla ñu xam ne daana jullee nii ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonente bi nag euh, yàlla ci boppam ne moom da koy def ak malaakaam daal di ñuy digal ñun jullit ñi ne dee leen ko def kon maanaam dee leen jullit ci yonent bi mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabiyyi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman gis nga julli ci yonent bi ni mu amee solo eh, eh, yàlla dafa wax ne yàlla day ak i malaakaam dañuy julli ci yonente bi kon yéen ñi nga xam ne ñi dangeen ngeen maa gëm dinañ julli ci yonente bi te di def ay sëlmal mooy allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala nga muhammad xeet ya bari na ne nag moom xaadimu rasul mii da doon nekk koo xam ne ku doon baril julli ci yonente bi la lool ndax ne ne fa man ahabba shay'an akthara min dhikrihi xaadim rasul ne nit ki kat boo bëggee dara loolu dangay ngay bari loo koy tudd te ne moom dafa bëggan loolu julli ci yonente bi ngir noonu nga xam ne ni yàlla da koy def ak i malaakaam ba pare daal di nu koy digal yaqul ribxi tilaawatu wasalaatu ala nabi wa kafaytani bihima ëza zalmay xaadim rasul na ne lii sama bénéfice mooy jàng alxuraanul karim ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ne ne ñaar yi kat muy jàng alxuraan ak julli ci yonente bi ne ne ci la ma yàlla fegale loraange képp ko du wax dëgg mu ne lora ji nga xam ne ji mooy jóge ci ki xam ne kii du wax dëgg daal yàlla mi ma ko fegale musale ma ca ci jàng alxuraan ak julli ci yonente bi sallallahu wa qad qassama sanata ila shiqqayni li madaxihi sallallahu wa sallam wa shiqqin aaxara alayhi xaadim rasul moom eh, at mi da ko séddale def ko ñaari xaaj maanaam juróom benn weer yoo xam ne da ciy bind di tàgg yonente bi ak yeneen juróom benn weer yoo xam ne yi julli ci yonente bi moom la cay bind ak di ko wax noonu la séddalewul at mi at fukki weer ak da ko def ñaari xaaj juróom weer yi mu di ci tàgg Seydina Muhammad juróom benn weer yi ci des mu di bi mooy euh, la mu wax ca mawaahibu naafia fi madaihi shafia mu ne fa xaala salaatu sitta bi maddahi sitta taatihi batta mahtisa loolu mooy xaaj at may ñaari xaaj ne ne juróom benn weer yi ma di ko julli ci Seydina Muhammad juróom benn weer yi ci des ma di ko julli ci moom daa de waxaat na lakkamti daax yi li jumaada thaniya min al muharrami imtidaahu rania xaadimu rasul ci mbind mu sell mi mu daldi ne yow seydina muhammad day li tàmbalee ci muharram ba ci jumaada saaniya dama la koy tagg maanaam maanaam li tàmbalee ci tamxarit diggiwu gàmmoo aw gàmmoo maanaam muharram safar rabion aw euh, rabion euh, rakki gàmmo rakkaati gàmmo ba ca maami koor loolu juróom benn weer la euh, da ko doon jagleel tagg Seydina Muhammad salaa mooy lakkam ci daaxiya lakkam ci daaxii li jumaada thaniya minal muharram yim ci daaxum ghaniya li tàmbalee ci weeru tamxarit daal ba ca maami koor boo ko limee muy juróom benn weer xaadim rasul ne ne yow Seydina Muhammad dama la koy tagg ay tagg yoo xam ni yu ama am solo la yu rëy rëy yu yaatoo yaatu daal di waxaat ne xadil tazamtu salawaatin min rajabin li xatmi zilxijati saayan yun tajab daal di waa juróom benn weer yi ci des nga xam ne moom lay julli ci yonente bi nee na li tàmbalee ci eh, maamu koor mu waxal ba ca xijjati muy weeru tabaski ne ne yooyu itam dama ci bind ay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon eh, noonu la xaadimu rasul meloon ci yonent bi ci wàllu julli ci moom ak di ko tagg kon mbokk te xam naa dañu taxaw ci tomb boobu rek muy noonu mu xaaje woon at mi def ko ñaari xaaj juróom benn weer mu ci tagg seydina muhammad juróom benn weer ci des mu di ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa kon yàlla na yàlla loo defal tawfeex bindee seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ne xaadim rasul mii mooy suñu royukaay kon lu nu bëgg yonente bi rek doyut lu nu julli ci yonente bi rek doyut loolu ko mën a taggit loola doyut tàgg Seydina Muhammad rek moom fi ne mooy jéem góor góorgóorlu ci liggéeyal islaam rek bu fekkee ni yow xañ na xam-xam di tagg yonente bi amoo ko nga mën a sax ci di liggéeyal islaam rek waaw waaw lépp loo xam ni lislaam yi téwoo na ko loo ca mën a jàpp nga jàpp ca waaye jaamu yàlla yi tamit eh, loo ci mën rek nga bañ cee am sago nga xam ne loo war a def la nga di ko def te sax ca bu nekk loo xam ne lii lu la war a la yal nañ ci yàlla defal topp ak gën nañ ci jàppale di jël sallallahu alayhi wa sallam ba beneen incha allah yal si lii sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey